si Diakité ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay. yow bokk nga ci ordre national des experts du Sénégal section industrie nga nga bokk tey euh, li nga xam ni moo jëm ci assemblée générale euh, ngeen woote woon ci li jëm ci wàllum euh, li jëm ci wàllum fiscalité ak évolution bi naka la ñuy war a mën a def pour jubbanti ko bu baax thème bi loolu lañ ci mën a jàngat déjà lan nga nu mën a expliquer ci importance thème bi. waaw importance thème bi mooy Euh, réforme code des impôts amoon na 2012 te ñu ngi 2024 jaadu na ñu taxaw xool ko. xayma xayma évaluer ko loolu moo tax waa impôt ñu ngi fi waa douane ñu ngi fi pour mun a euh, natt. ñu eh, politique boobu depuis biñ ko defee ban jeexitam la am ci dundum nit ñi ci koom réew mi et cetera donc euh, am na solo. am na solo waaye ci waxtaan wi sànq da nga ne am na ay contraintes yi nga xam ne itam nekk na ci nan la ñuy def pour euh, génn ci contraintes yooyu. non dama ne àdduna nit loo def day am contrainte loo def am na contrainte te loo def. war na am amélioration te lii waxtaan bi mooy loolu pour mun a génnee li nga xam ne nekk na contrainte ci doxalin bi wala rëq-rëq yi nekk ci doxalin bi ñu mën koo génnee def ko ay recommandation pour saafara ko wax ko njiit yi loolu mooy njëriñu waxtaan bi déjà gis nañ li ni mel euh, jàpp nañ ni li war a doon solution bi digitalisation la xarala yu yees yi ndax jàpp nga ni mooy voie bu mat bi wala dafa desandi. waa digitalisation am na ci solo trop trop trop. dina dimbale pour yombalal ñi nga xam ne dañuy war a euh, contribuer ci impôt yi ñu mën koo def euh, ci anam bi nga xam ne yomb la. digitalisation def ci daf ci nekk li nga xam ne dina sax augmenter recettes yi parce que li yomb def ni ñi def ko euh, ak seen tablette wala seen téléphone euh, loolu mun na am mu mu gën a yokk recettes yi te tamit euh, digitalisation dafa nekk li nga xam ne dafay indi li nga xam ne dafay dindi ay contraintes Euh, ci wàllu euh, doxalin. donc euh, loolu am na ci solo tout à beneen bi mooy comme sa xam-xam màcc na ci jëm ci wàllum industrie déjà ministre bu ñu dénk wàllu wi ni mel fan yii nii yëpp mi ngi ciy def ay jéego mais liñ ci bëggoon wax rek mooy industrie bu Sénégal fan la toll am na ay jéego wala obstacle yi bari na. waaw industrie Sénégal pour le moment amagul doole. amagul doole mais nag li ñu war a jàpp mooy industrie du rek ay usine ay entreprise man li ma jàpp mooy industrie mooy soppi transformé te tapi tamit nga def ko ci li nga xam ne am na échelle ay biens yi ngay produire à partir de matière première à partir de matière d'œuvre ay biens ngay produire li nga xam ne nit ñi dañ ci dañ koy jëfandiku donc loolu du ci usine rek lañ ko mën a def mën nañ ko def ci beneen façon organisation liggéey euh, def ko ci anam bi nga xam ne ki nekk ci dëkkam ci village am mu ngi participer ci production mu ngi am revenu am am te fekk moom euh, bougéwul bougéwul fu mu nekk te loolu am na li nga xam ne euh, moom la ñuy tuddee système de production système de production am na solo te loolu organisation liggéey buy produire liggéey buy produire liggéey buñ ko joxul gëdd organiser ko nit ñi am ci liggéey am-am bu doy am-am bu doy boobu moo téye li nga xam ne moom la ñuy mën a contribuer ci économie bi parce que ku am di nga mën a jënd di ngay consommer te consommation boobu ci croissance daf ci am solo trop donc industrialisation mooy système de production moom noonu laa ko gisee. d'accord d'accord te da jàpp nañ ñu ngi ci yoon bi. yoon bi jàppaguñu ko. nekkaguñ ci. jàppaguñu ko mais autorités yi bees yi. dafa bokk ci li nga xam ne. mën nañ ko séntu ci ñoom. parce que rupture. bi ñuy tàmbali li nga xam ne Sénégal war moom boppam loolu li ñuy def yépp loolu lay topp Sénégal moom boppam ci wàllu koom te loolu tabax la te lu war a mën a nekk la war mën na nekk te parce que li lii tax mu mën a nekk am nañ ko déjà mooy nit ñi xale ñi fi bare na ñu war a liggéey te liggéey moo yore koom du xaalis moo ko yore. d'accord léegi mesures yu yees yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko daanaka ci altine bi lañ ko war a jëmmal wàññi euh, njëg yi euh, da nga jàppale volonté état la. waaw baax na volonté la te volonté am na solo état gouvernement dafay am volonté won ko te te bu ko wone Euh, mu joxoñ yoon nit ñi topp te te loolu euh, ñëpp ci wër ñu ci gis seen bopp pourquoi parce que gouvernement ñëpp la fi nekkal wu mënul jël mesure pour ñi contre ñi wala contre jële mais léeg dañuy gis euh, polémique bu muy indi non polémique mooy manque de compréhension rek la buñ ko comprendre woon ñu toog xool comprendre li tax ñuy def loolu te gën a organiser gis nga am na ay pertes yi nga xam ne dañ koy am sax organisation rek moo des tuuti bu ñu loolu moo tax ñuy am perte yooyu buñ ko organiser woon tuuti rek nga gis loolu perte yooyu yëpp dafay nekk gain donc li ñu war a jàpp bu baax a baax a baax mooy gën a fullaal euh, organisation liggéey mais léeg-léeg bu gouvernement jëlee mesure dañuy gis jafe-jafe yi muy am dañ naan njëg li wàññi nañ ko waaye boo demee ci yeneen boutique duñ ko respecté euh, lal ban taxawaay la sa gouvernement war a am. non dañ ko war a respecté dañ ko war a respecté parce que respecté c'est pas boo ko respecté yow c'est loolu ça ne veut pas dire que yow da perte. respectel yow kenn waxu la nga perte mais boo ko respecté dox ci kanam tuuti nga gis ni li ngay am mooy gën a bare parce que loolu politique moo dox noonu da ngay gis li nga xam ne ci tàmbali bi mu jafe lool mais après peu après mu xool mu indi euh, kii mu bare xeewul yi bare mais bu bu fekkee sacrifice yooyu amul woon ci début bi xeewul boobu mënul ñëw donc mun nañ comprendre loolu te jàpp ci l'essentiel c'est que taxawaayu gouvernement lan la war a doon day day wane ne toujours amul par parloo problème sénégalais yi lay traité sénégalais yi day traité loolu bu fa nekkee rek nit ñu xam war xam ne ñëpp jàpp ci bu fekkee du problème sénégalais ñu mun a wax mais bu fekkee problème sénégalais ñu ñëpp ci war a jàpp. mais en mois de trois mois déjà euh, ci liñ teg ci ay jéego déjà c'est rassurant. bien sûr parce que xam nga bu ñu gaawantu di juger waaw. gouvernement bi gouvernement pour moom suñu bopp la régime bi pour moom suñu bopp la te dañ koy tabax dañ koy tabax donc loolu il faut ñu xool dans l'avenir nu muy mel trois mois rek la ñu def loolu doyul pour xam sax mun a seen walla ràññee bu baax a baax yoon bi donc nit ñi il ñu xam loolu ne yoon baa ngi fii gis-gis bi la ñu war a dégg mooy Sénégal dafa bëgg a moom boppam. te mën na nekk koom. ne wax naa la ko mën na nekk amul benn problème parce que liggéeykat am na fi li ñuy liggéey am na fi. donc volonté moo des. organisation moo jëmmal liggéey organiser liggéey. d'accord ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax si Diakité bokk nga ci ordre national des experts du Sénégal section industrie yaa nekkoon sunu gan euh, waxtaan wi am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa lay sant tamit ci invitation bi li ma fi wax. Euh, ma yaakaar ne mën na am tuuti contribution bu fekkee am na njumte nag maa ngi baalo ñëpp